dañu tok bi yag rek ay nattkat ñëw ñu ne wa pol ñoo leen yoni dañu def état de lieu parce que dañu ne li dalee Tivaouane pol be Kayar jël nat avion yi nat nañ ko ci kaw lepp légui pol bi lañ fi tek kon nun fan la ñu ne. alaykum bonjour tout le monde j'espère que yéen a jamm bu baax alhamdoulillah alors man la Fatou May Diouf juriste spécialiste de l'immobilier di yëngatu ci walum souf Euh, directrice de l'entreprise My Group directrice entreprise My Group bi nga société immobilière la suis ma indiwaat débat bi version olof Bipa, toujours sur le Lac Rose suis ngi au niveau de la DGPU demande pour déposer un autre dossier dossier de régularisation Je suis venu ci le pour faire une autre vidéo parce qu'en fait dafa euh, sensibilisation parce que plusieurs personnes ñu may pour que ma jëndal terrain man dafa tellement que dama affaire bi dama lu muy parce que nit ki dafa may ne ma sa vidéo bi sur le Lac Rose en même temps dama soxla terrain c'est contradictoire d'après li wax yépp ci soo seetaanee vidéo bi nga contacté waat nañu dama soxla Rose terrain man je me dis que peut-être la personne n'a pas compris mon discours donc té ma ne faire une defaat euh, vidéo sur le Lac Rose di ñaan ñi nga xamante ñoo fa am terrain di sensibiliser di informer ñi nga xamante ñoo fa am sen terrain au niveau du Lac Rose ñu dem déposer un dossier de régularisation ñu dem déposer un dossier de régularisation déposer seen dossier de régularisation so xolé ñi nga xamante ne ñoom la wa ñàgg wa mairie ñàgg Tivaouane feul jox euh, sen fameuse euh, notification boobu dañuy bind ci souf ci zone yi nga xamante c'est concerné par le pôle dañuy bind ci souf li limay waja wax comme ça ku nekk comme ça ku nekk dem xol notification xol ndax mom bindal nañ ko lool parce que mënuñ la bindal lool ba paré xëy na nga lire ko après nga noppé ko aussi wala nga togué ko loolu en fait c'est pas la bonne attitude donc euh, soo xoolee fii par exemple euh, le nom du client cest à monsieur X yow mi nga xam ne yaa moom terrain dañuy bind diw mi kat déclaré na ne xam na li nga xamante ne moo aaju ci ci ci ci ci condition yi nga xamante ne moom la ñu joxee terrain yi euh, ba pare cité bërëb bi nga xamante ne foofu la terrain bi nekk kii par exemple moom Déni Géej Nord la nekk ba pare bindal leen bindal leen et puis en gras bindal leen ko bind bu ñuul boobu pour que yéen ngeen mën a comprendre en fait pôle urbain en fait moom zone bi su bokki ci pôle bi dañ lay bindal pôle urbain du lac Rose après ñu teg ci ne décret numéro 2016 764 waa mairie ba ca boppam ñoo ko bind ci seen kayitu kër yi leen jox notification parce que soo fa amee euh, soo fa amee euh, sa terrain da ngay am fa acte de vente par exemple da ngay jël acte de vente boobu de la sa délibération vous déposer papier yi nga déposer pour am sa délibération Nous dinañ la sa notification d'attribution de parcelle. Euh, ci notification d'attribution de parcelle vous vous dafa concerné vous terrain bi dafa dugg ci pôle bi da ngay des services. Euh, des domaines de Rufisque par exemple parce que ça ça fait partie des domaines de de Rufisque que le client doit se rapprocher la personne qui détient la notification doit se rapprocher des services du domaine en relation avec la délégation générale à la promotion des pôles urbains moi DGPU vous vous doon des depuis vidéo depuis vidéo DGPU la bu fille sacrée Sacré-Cœur

notification bi nga xamante ne moom la waa ñaaga Tiwaawoon Pël joxe donc paragraphe bi ma doon lire sànq moo nekk fii nii notification bi nga xamante ne waa moom la waa ñaaga Tiwaawoon Pël joxe moom ngay boole ak sa photocopie carte d'identité boole ko ak plan géomètre agréé bi nga xamante ne plan bi nga xamante ne moom la la géomètre defal ci parcelle bi waxuma plan de masse de plan de la parcelle laa wax nga boole ko ak euh, nga boole ko ak sa pièce d'identité je wax naa ko ba pare nga def sa demande ba vais nga def sa demande manuscrite alors adressée à monsieur Dien Farbassar délégué à Dien Farbassar délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose Nous ñoo un projet bi avons fait fay def demande pour xamal leen que ne yow am nga fa terrain au moins ñu sóoraale la ci sen évaluation Nous nga xamante mom lañu di def actuellement ñu ngi def ñu ngi en phase d'évaluation manam ñu ngi xool foofu kan moo fa am terrain ak kan moo fa amul terrain donc dinañu recenser ñooñu mais donc yéen ñi nga xamante ni yéen a fa am parcelle concerné par le pôle ñu bindal leen ko ci seen notification. en ce qui concerne Bambilor aussi ñoom dañ lay bindal soo fekkee yaa ngi ci pôle bi dañ lay bindal que ne yaa ngi ci assiette titre foncier 14 043 dañ koy bind ci seen notification bi donc yéen ñi nga xamante en fait actuellement yéen a ngi nekk di dute ndax maa ngi ci pôle bi wala nekkuma ci pôle bi xool leen seen notification bi ba pare. su fekkee seen notification bi permettre leen ngeen xam ndax yéen a ngi ci pôle bi wala nekko leen ci pôle bi seen terrain am nañ ay plan plan yi am ay coordonnées day am ay chiffres ci suufu plan bi day am ay chiffres chiffres yooyu plan boobu moom nga yóbbu DGPU ñu dugalal la ko ñoom waa waa DGPU seen géomètre ñu ngi nekk ci beneen immeuble bi soo ko yóbboo ñu dugalal la ko ñu dugalal la ko localiser la terrain bi après nañ la wax ndax yow yaa ngi ci biir pôle bi wala nekkoo ci biir pôle bi bu dee yaa ngi ci biir pôle bi danañ la wax nga def demande de régularisation nga déposé ko foofu pour ñoom ñu xam ñu tenir la en compte ci seen évaluation boobu ñuy def xam ne am nga fa terrain loolu c'est le léegi nag nga toog deglu leen xool ba xam la loolu pour ñi nga xamante ne ñoo fa am seen parcelle ba pare la ñi nga xamante ne nag ñu ngi bëgg a jënd côté Lac Rose te jëndaguñu ñu informé wu ba pare xam fan la ñuy jënd terrain bi ñu ko bi ñu leen wax ne moom lañ leen di jaay ngeen xool ngeen xool ba xam parcelle bi mu ngi ci pôle bi wala nekkul ci pôle bi am na nag ñu bari tey ñoo xamante ne ñoom ñi ngi bëgg a jënd laaj ki leen di jaay terrain bi ndax bokk na ci pôle bi ki leen di jaay terrain bi ne leen nekkul ci biir pôle bi c'est normal parce que moom day jaay rek mais yéen yéen yéen a war a xool mais ngeen moytu surtout ngeen moytu surtout lotissement yu bari yi nga xamante ne mu ngi foofu jaarul yoon foofu am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw samp rek seen seen lotissement samp ay borne rek ne leen ñëw leen jënd ca lotissement yooyu jaarul yoon lotissement yooyu jaarul yoon amul autorisation de lotir amul amul dara jaaruñu sax mairie ñu bëri ngeen moytu jënd terrain yooyu parce que nag après les conséquences si yéen lay daal parce que ki lay jaay day encaissé xaalisam après dem yoonam dootoo ko gis ñu bëri ñee nañ leen ki leen jaay seen parcelle mënatuñ leen sax jot téléphone bu voyez la difficulté moytu leen Descos mi ngi ci zone bi Descos mi ngi ci zone bi di terrasser lotissement yu irrégulier yooyu donc loolu laa ne woon daal dinaa leen ko bamtuwaat parce que la répétition elle est pédagogique dinaa leen ko waxaat pour ngeen gën a moytu ci ñi nga ci zone boobu nga xamante ne foofu lañ prévoir def pôle urbain du Lac di leen jox dig daje di leen jox dig daje fan yi di ñëw ci yeneen vidéo incha allah